ziar kontaanee jox cër mbokku Sénégal ziar kontaanee jox cër mbokk àdduna ziar kontaanee jox cër mbokk diaspora kon a mbokkum réew mi feggoog Mbaye ci seen émission mbedd mi ci seen seen C'est le TV ku am ñaari junni yoo may mayal ku la neex mais ku bëgg a dégg dëgg jàppal C'est le TV doo ko rëccu comme ni ko mbay di waxee sama doomu ndey sama wóolale la grand soudeur métallique Alaaji Mbaye Logique numéro téléphone 77. waxal 974 974. 11 11 72 72. lépp lu waay bëgg ci. weñ weñ. aluminium aluminium escalier buntu. case escalier. ak li nga xamante ni ni mooy passion nga xam ni ñooñu sant Diop dañuy tëb kër jàmbur yi. day day <laughs> ku bañ ay sàcc sonal laak sécuriser de maison lépp wool mbay logique. nee naa sant Thiam boolewu ko ci mbaar mi daa mën a xel ci pire. mooy daa mën métier kon nag c'est la ngi noonu tey ñu ñëw di waxtaanaat ci actualité ginnaaw bu ñu nuyee ñëpp bokk internet yëpp national international fu nekk la ñu nit ci di woowee. ñoo ngi nyep ñëpp ku lim do matal ku nu faté nak nu baal mais ñoo ngi bëggé ñëpp Laurence borom Paris Adama La Lyon hein ah? Mami Salam borom Suède Aline Sey 2 Sénégal hein ah? Mam Cheikh Mbaye groupe Sénégal jar ak képp rek ko xamanteni ya ñuy Saloum TV hein ah? ku lim do matal ñoo ngi bëggé ñëpp di bëggé groupe solution Sanjoogu Mbeng Baye assad masere ak ki nga xamanteni moy son bu ñuy jaay garab yu bax yi fele ci en face Walfadjri di gërëm Cheikh Bara ndjay ak Baye Momar djaj ben pa la bo xamni ni ay discours yu rafet lay def ci internet bi imam la mais dafa am xam-xam day wax ci valeur yi day wax ci diine ji day wax ci lepp te ñun ci loolu lañ nek ba da ko yene rew mi. ba pare yene nako rew mi. Ah, man nga am doo yene waaw kon comme ñun suñu mission moy deugal valeur yi deugal diine ji waye deugal li nga xamni mooy dëgg ñu naan ku yor ñaar may mayal ku neex mais ku bëgg a dégg dëgg jàppal sa la bon TV kon képp kuy dox ci dëgg suñ la tuddee suñ la tuddul sëñ Ahmadou Mbacké Rafahi ak képp ko am sëñ Mbaye Sy Abdou sëñ Habib Sy képp koo xam ne rek yaa ngi ci Sénégal di œuvrer dans le bon sens di wax luy def éveil de conscience mbay ñoo ngi lay bëgge tey nag émission bi euh, dinañ waxtaanee ñaar ba ñetti pàcc dinañ wax ci wàllu cumul de mandat mbay cumul de mandat mooy boole ñaari poste ak li nga xam ne mooy parti pastif xam nga ñoom déjà dañu amoon benn benn taxawaay ci ñoom waa Pastef ne ñoom bu ñuy exercer pouvoir wala bu ñu bu ñuy ut ndombal tànk bu ñu demee ba yor réew mi wala ñoom ndombal tànk du ñu boole ñaari ndombal tànk Ousmane ko doxee ko waxee ko kon tey dinañ xool fan lañ ci toll ah. parce ñun askan wi lañ rek gars yi bu ñu wax dinañ leen far faruñoo kenn dëgg lañ faral réew mi lañ fi nekkal kon dinañ xool wàllu cumul de mandat ban taxawaay la ci Pastef am ak lan la ci waxoon dinañ waxtaanee aussi encore une fois procès babak ba ki Ndiaga djouf ak Barthélémy dias tay la Barthélémy waroon a wuy jiwaat tribunal amna yu ci xew amna ay verdict yu ci genn dinañ ko waxtaanee kon bay ñaari point yoy rek tay la bëgg ñu waxtaanee ko wa mu doon point yo xam dañ koy yaatal wax ci lu am solo ñu njëkkee ko nak procès Barthélémy dias ak Ndiaga djouf Mbaye Barthélemy tey lañ ko woowaatoon ginnaaw bi nga xamante ni 2011 su ma juumul wala 2000 2009 bi bi bi parti ab Ablaye Wade nekkoon ci pouvoir muy PDS. Ndiaga Diouf nekk ki euh, Barthélemy nekk ci opposition bi. nekk maire maire mu Sacré Cœur bi mu nekk nii tey. benn bis mu toog ay nit ñëw fa bëgg ko songu. songu ko sax songu nañ ko. yoo xam ne caaro yi lañ jugee bébé defal nii. ñoo xamni ne yi lañ ñi jugee fu nek manam ay nervi sélection la imaginez wala Pikine wala ba kon déjà violation de domicile amna ñu fekk ko fa mo am ay incidents yu fa am mort d'homme am tia nous ah. ñuy wax ndaga di nervi bi dé ci légui nak Macky Sall and ak ak di xex injustice bobu ba fekk ko ci bir kasso bi Barthélemy Diaz seul prisonnier bi euh, euh, prison

arrêter. <laughs> xam ne dañ ko arrêté. mbay a tourné. kay man ah. Macky Sall fekk Barthélemy Diaz ci bi def ko député. parce que soxla na renfort Diaz Jean Diaz Barthélemy Je ne Je ne ne euh, dañ injustice lañ teg ci kawam Barthélemy reyul kenn même bu reyee sax légitime défense la résumé Macky Sall depuis bi mu gagné ba jël kon Sénégal justice ñàkk nekk ci yoon mooy ñàkk a bokk gis-gis ak njiitu réew mi. parce que boo dee xool maanaam Sénégal instant boo nekkee sàcc bu ndaw. justice day day day sawar si yow. boo sàccee ay milliards dañuy utal sa foo xam ne spécial fa ngay nekk sa soxna bu waree ay leen day ay leen ku waree ay maar day ñëw ay si maar yow mi xam ne da ngaa sàcc doon lu ñaari xar wala benn xar yow yow waxuma la waaye ñu ne indi ay leen añ képp ñu jox la ko problème.

ne da ngeen ko tam du dëmm ba mu demee ba toog ba xam ne kii da maanaam ko sonal mu dellu si na dëmm la mais ñun dañoo xam rek da lay taxawee da ko seetaloon ba ñun ñu war a ut suñu saabaro ak fi ñuy tax te xawuñ ci yow bi di ko waat nag carrément moom moo moo def Abdou Khadre génn sa loxo parce que xam nga man arrangé wu la mais justice Sénégal te dëggul njeexal njeexal kono moo tax li ma ciy déploré nag mooy

parce que soo demee bañ koy wutal procès koo xam ne dafa jugoon pour rey nit wala mu jug ñu fay ko xaalis pour mu dem pour toroxal ay nit far ndogal fekk ko ca ba ñu rey ko ci ba ñu ko ci ñu war ko sanctionné nga xam ne keneen dootu ko gaaw a defaat tey Papa Ndiaga Diouf mu ngi laaj 21 millions Barthélémy ndàmpaay ndàmpaay te seen jubluwaay moo ñu ba instant ñi laajal Barthélémy Dias ndàmpaay bay ñun ñuy sàmm valeurs yi di sàmm diine ji ñun ñi nga xamante ni diine Sénégal ak valeurs yi ak ngor daf ñoo soxal mbay suñu koo xam ne doomam nervi la ñu fay ko alal pour mu dem lor nit far ndogal ko fekk ko ca kooku bàyyam onze ans xaw ma douze ans après baayam taxaw di laaj ndàmpaay ci doomam jooju nga xamante ni tey daf ko waroon du ko ñaanal ndax ci li mu dee kenn buggul jur sa doom muy dewee noonu Sénégal xam xamuñu ku tooñ ku tooñ ñaar bi lañu xam xamuñu ku dóor ku fayu lañu xam mais imaginez mer muus ba caaro yi ak ñaata la xoolal distance boobu ni mu soree lan la Ndiaga Diouf di wut si foofu bañ koy tiire ba muy dee man ba ma xoolee Ndiaga ba ma seetaanee affaire bi ba xoolaat Barthélémy Dias li mu chargé lan la Ndiaga mi dafa reeb Barthélémy dafa chargé ne fois deux fois amul trois fois yëpp day dóor si air ba mu jeex te Ndiaga ngi taxaw man de bu doon man benn benn Barthélémy Dias di mu fekk na ma jàmm gën mais yow lan mooy lan mooy borom Dias na lay xeexee borom fete la léegi nag loolu yëpp mbay liñ ciy jàngat mooy nguuru Sénégal maanaam politique u Sénégal liñ ñu gëmloo mooy ñàkk ànd ak ñoom mooy délit yooyu noo mënti mel ànd la pouvoir yow noo mënti mel baax na noo mën a mel rek yow na nga ànd moo tax nga gis gars yi di jaay seen gaa boo baaxee nag ba teg ba si ànd li ñoo xam da ngaa baax te su ku guddee su gàttee liñ ci war a jàng loolu la boo boo gonee yow ñaar di ñëw eh, eh, woote kii bu doon yéen dëkk ñag yi kon Sénégal tàq na ndax ñaar moo fi taxaw saaga olof yi kan moo fi taxaw ne buñ génnee buñ génnee jaas yi ba kii nar a dem ba dem troisième mandat Aliou ana mo dañ ko tëj yeneen dëkk yi am guerre civile yëpp loolu ko indi. ma wax la tey lu bees taq jàmbal jàng. boo ko waxoon ni ak instant bi da ànd ak Macky Sall. Abdou Karim Gueye ak ak ak ak Cheikh ñu ngi tëj ci kaso bi Papito Kara reetaan lañ euh, lañ moom Ousmane Diagne reetaan justice amul Sénégal ci boobu moomul Sénégal maam ànd na ànd na ñii ñeneen la justice la nga ànd mbay jamono boobu ma jàmbal Diagne barki démb wax la tey ne la woon ne rek ñàkk ànd ak nguur moo fiy deli moo fi deli dafa am benn député Casamance Casamance dañu am culture bi sol yenn mbaxana yi ah. député bi sol loolu ma jàmbal Diagne daal di bind ne kooku taalibe Salif Sadio la rebel la te xamul ni loolu aaday Casamance la bo xolé tay député yëpp démb sax dañoo sol mbaxana yoy ngir solidarité kooku. imaginez un journaliste yow tay tu n'es pas renseigné xamoo sax culture Sénégal kon lan moy enracinement bi nga xamni ñun ñu ngi koy maam ñu suñuy culture. mais yow nga ngay dëkkee journaliste bu toll ni ma jambal Diagne xamoo woon ni lii mooy culture maanaam culture réew yi maîtriser woo xamna ko dé ma jambal Diagne non la mel seytaane la noonu lay mel. mais comment se fait-il que mu mën a acharné wu ci benn xeet non non moo moo ko tey ci dañoo sol mbaxana mbaxana moom nga xam ne aada la ci xeet boobu ñu ibbi assemblée ku nekk sol tenue bi la gën a cher kooku comme joolaa la mu sol tenue bi ko gën cher di seen aaday réew ma dembal jaañ ne robel la moo tax mu soloon moom est ce que loolu man su ma ko waxoon tey intelligent ndax nit ki def ñaaw téef day xool ngeen comporté mu comporté du xool li nga xam ne la waa waa Sarr Sarr mel bu ko duggee foofu day neex a non seen tenue traditionnelle la sax même ne ko tenue traditionnelle bu fa def dara mu day sol comme ni sol ñun su Mali su ñun rab màbb yooyu ñuy sol xam nga tenue traditionnelle la nga dem ci sëru njaago yi seen yooyu xam nga tenue traditionnelle mais bàyyi laat foo sol dañaa ko ko ñu bu rebelle moo tax moo tax sëñ Abdoulaye ne woon na ku sol di ci def nakar sudul noonu tuddee ko sa baay Baye Laat moo amoon fulla dafa am ma waxee ñu ne dama tàng xol su ma noppee ñu ne damaa dikkale ay ah. Baye man sonn naa nii ay <laughs> Baye mais Baye li la doon dal nag ba tey mu ngi am réew mi soo noppee ñu ne da ngaa bon xol soo waxee ñu ne ak a soo yoree di maye ñu ne day tiitaru sooy leeral ñu ne ni secret nangam la secret défense soo yoree di maye mbay ñu ne da ngaa bëri tiitar kii daa mën a wanewu nga yor téye li nga yor ñu ne daa nay ah, dafa soob lan moo xew <laughs> ah, am na ñu ko wax sax naan màggal gi nii ay ray gis nag loolu loolu wanewu la moom man man non yàlla daa ko wanewu sax ndax léegi mu def benn kéem daa ñu ne wuñ seet yàlla dafa wanewu foofu boppam day wane boppam yàlla ci wanewu la dëkk ci loolu dëkk nga day gis nag ñu ne da ngay wanewu mais lan moo xew léegi boo rayul nag ñu ne dem nañ màggal gi ñëw lekk kon Sénégal li fi xew da ngay def kon nag ci kaawu Barthélémy Diaz loolu lañ ciy wax

am infraction bu mu def ba dé fekk ko ci 11 ans xaw 12 ans après nga ci top di laaj xaalis non loolu ñaaw na te mu lér na li ta doom togn ak tuba jubadi ak tek lu dul yoon. ak ak ñu utiliser ndax alal motax ñu ray ko. ko ginnaaw ray reyuñ ko bëdd kërëm ka fa dem ba ci mère jambour mom ay bal fa ay soxli fa tak mom sax ba légui déggolé la ñu ne bal perdu moko ray dédét ñam doon jàkkaarloo kenn ci ñoko moko moo ko ko dóor bal mu ki ñoo ngi nuyu Thiam dem ak bokkar aw buru kërëm kenn mom ñu ngi nuyu Fatou Kiné Ndiaye jabaru Mbaye Losi Mbaye ñoo ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp ku lim doom ma mais daal Mbaye ñu dugg ñu jub kon Barthélémy da nga xam ni euh, euh, ñàkk ànd ak nguur dong moo la dal du leneen kon li li li nga nekk yàlla def na la ko ba noppi moom kenn la rey sax waaw def na la ko ba noppi mais ki sàcc xaalis hôpital ay nit waroon fa fajoo ku dee yaa ko rey te kenn tëj du leen tëj Barthélémy kon kenn lañ ko ji moom kenn la rek moom kenn lañ ko ji sax moo ko rey ah. waaye ñu jël xaalis bi waroon dem si santé bi lekk ko ñoom ñaat dindi lañu rey wala foo xam dafa waroon tëb am tali nga fex mam raa oto oto privé fa kooku yaat damu fa ñaat ni loolu te mu ngi toog kañ tëju Cheikh Omar Anne ñaata nit la rey. trahison mooy trahison haute ñaata nit la rey. 6 000 sama 400 maa ngi màggal xajoon lekk ñaata nit la rey. kenn xamul lan ñaata nit lan ci ay nit a ngi lor yoo xam ne xaaj bi ko waroon faj muy lekk. dañ ko lekk ko jiiñ waaye am ñoo xam ne mbooloo lañ rey ndax dañuy fekk alalu mbooloo. ñooñu bu def ci mbooloo mi mu jëriñ mbooloo ñu lekk ko. nga bëgg faju doo faju nga bëgg a dem hôpital ñu xam nga ni kon maa ngi doog a dégg li nga wax. ma ne borom suñu milliards mu ngi rey chaque jour bu ko xamee bu ko xamul ndax lu xaalis am na fu mu war a def nit ñaa ngi xiif nit ñi ngi dee ak mar ñu leen coupé ndox mu jël suñu milliards toog toog si benn milliard mënu koo jeexal 32 milliards 94 milliards ba léegi maamu. jàll 29 milliards product 29 milliards product Mame Mbaye Mame Mbaye Niang ba ñu ngi ko koy jox mu toll kon ñii ñooy reykati nit yi reykati nit mooy ñu jël seen xaalis ne ko tabaxal hôpital nga dog nga jël koy lekk kon bàtt li mu jàppal ni ñooñu ñooy criminels yi kay criminels yi ñooñu eh, soo sàccee nekk sàcc ba amul dara bu leer wax naa ko soo sàccaatee détournement ñu ne détournement xool dañ ko rafetal <laughs> ay Sénégal ku fi ñàkk ay biir réew ñu ne raykatu nit la su dee su dee da jaxoo jàng nasaraan du ñu naan non c'est un criminel c'est di lekk air yeeg moo xew donc mbay ñu génn foofu ñu dem ci deuxième point bi euh, ci cumul de mandat bi nga xam ni euh, parti passif bi nga xam ne Ousmane Sonko mu sell mi euh, moom la ñu jaay def ko ci euh, programme jotna bi en 2019 mille di koy def ci seen ci article ci page yi. xam la ni ñom buñu ñu jëlee nguur du ñu ben benn eh, maanaam benn ndombal tànk institution mooy lu mel ni nga nekk député. nekk maire wala nga nekk maire nekk PCA wala nga nekk manam cumul de fonction dal ben nga jël sa morom jël ben Ousmane Sonko daf ko jaay sénégalais yi def dem fi nekké ba lé benen bi ci top sen article euh, sen kii wu parti seen règlement intérieur parti article 17. ñu waxat ko fofu ñom passé ne ñom dañuy lutter bép cumul de fonctions même ci biir parti bi sax. duñu ñu nga yor fa ñaari ñaari ñaari ñaari rôle.

dafa am rêve bu ñu jaay Sénégalais benn waaye dafa ma wax ni benn jour mu ne ma Kona. yow euh, tu es en phase avec Ousmane Sonko. maanaam yow da ngay défendre Sonko. ma ne ko c'est Ousmane Sonko qui en phase avec moi. xam nga loolu lu muy teg. mu ne man damaa déggook Sonko. ma ne ko man damaa jàpp ni Sonko moo ñëw déggoo ak man. mu ne ma lu tax.

man Kona ma nekk xale bu ndaw ñu naa ma xale du xeex ak mag ma taal daay bi xeex ko ba Aline Sarr jóge na fi tey révolution bu ndaw ndaw bu am ci làmb am na lu ma ci joué man Kona te pourtant ba ma koy tàmbali dañ na ma woon mënta ne kon Ousmane Sonko daf ma fekk ma doon bañkat ah. doon rêve njiit bu mel ni moom amuñu ko mu ñëw présente ñu boppam présenté ñu programme présenté ñu yoon boo xam ne ñun ñu ko woon om homme politique moo tax ñu ànd ak moom ah, te ànduñu ak moom sax dëgg lañu ñu àndal on défend la patrie moom instant li muy woote bu demee ba nekkut si nga xam ne ñun ñooy kan pour le moment li muy woote xam nga nit moom da am ci moom yaakaar yaakaar yaakaar yóbbu ñëpp mbay yaakaar mu ñëpp même àjjana dañu am ci moom yaakaar mais xam ñu ndax dañuy dem duñ dem ni ko yàlla expliqué kenn gënu ko dégg àddana bu ko ni ko yàlla expliqué bu dee noonu lay euh, euh, demee sax ni ko yàlla expliqué daal neex na moom débat daal laa xam moom maa ngi nuyu Amana Rasoul tukulóoru Ousmane Sonko yëmbal la dëkk da lay bëggee ah, waaw nee na mbay losi kenn moom mooy bi nga naan bi nga naan euh, Macky Sall euh, daa daa beru daa desee mokkal métier moom nee na loolu moo ko rey man amul compétence amana bu yëmbal xale jàng leen métier tukulaaru Ousmane Sonko moo tax ku ci toll ci jàng métier jàngal bi moo tax mbay ñun nekkul Ousmane Sonko la ñuy défendre on défend la vérité on est pour la patrie Macky Sall moo ñu waxoon la la la la patrie avant le parti la patrie avant le parti réew avant par par avant avant parti sobre et vertueuse Nous sommes ko ak Macky man xalé yi ak en 2011 man ci la beaucoup. mu parti avant le parti avant la patrie gens dana parti ñu avant Réumi. ñu bayiko. Légui lolu la wax Légui lolu tax ñu programme indi différence ak rupture par rapport ak nguur yi ni ñu daan doxee ak politiciens niñ daan ak seen askan. Ah. mais lolu muñu jaay cumul de fonction daf ci bok lolu bokol lu bind ci li wax. kon Bada bey yow Aline Badara. Euh, yow dang ko xam. ndax Bada bey jàmm geul mbay bi mi door politique dafa am lo ci participer dama bëgg nga wax ak Bada. Bada ak Bada bey nga wax ak mom parce que dégg na ko édition spéciale wal mu mune mom du joxe ben postam day def cumul de mandat te mu ngi bok Pastef. bu nekkee député Pastef moo tax bu nekkee bu nekkee euh, ministre euh, maire tey Pastef moo tax te yow xam nga ci dara. waaw nga ñu nga xam. Ousmane ko sax moo tax far. jàmm nga ñu ngi xam ba bëriwul waxuma laa sam sama ñeneen. wuyu juróom-ñetti personne wala xaw ma juróom-ñeenti personnes yi nga xam ñoo njëkkat a ci ab saal ngir samp ko man ci laa bokk manam juroom ñetti personne yu mësa dajé ci salle ngir taxawal Bada Beye jàmm gën yow ci nga bok kon bay waxal ak Bada wat jotee nga wo bu ci wat jotee sax man man may wat waatal yow ndax lépp fi la ma fek la doxalal ma fek ba kan lay laaj jakar loolu ak Bada nga wax ak mom mbay bi ñëwé tok fofu non man la khadim sen jankat aw papa tafa ñaan dem ci yalla ci dadi camera jëwriñ sama Bada Beye mbay dalay laay laaye biir yaa may dégg yahya yaa ma fek ba kan lay laaj ak jili mi nga xamni mo dëkk fa fële moy bloc 16 ma fek ba kan lay laaj keroog ak Pape Sall ñi ca Saalu Bada Bey non ci Saalu Tafa Ñaan dem si yàlla si boobu Bada Bey est-ce que am na Saal sax non am na Saal sax ndax moom liggéey boo xam ne mu ngi ci doon sutur mooy tëyër ba liggéey boo xam moom parce que mu nekkee président ASC Daaru ab dem na bay liggéey xaw ma ot kaaf kii genre kaaf kaaf yooyu léegi Bada waxal fa la newoon ba amoon amoon benn ONG bu ñu liggéey muy EF fa nekkoon EF amoon que na otom si lañ daan campagne benn moment bi nga xam ne moom lañ koy bëgg a samp keroog réunion bi ñëpp a wax ñu dégg France ñu dégg anglais ñëpp wax man maa bokk si ñi mujjee wax bi ñëpp waxee ba dama leen ne carrément man ko bada bi joxoñ ko ñii may waxee yéen na ko yow Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ko boppam mais yow la kenn xamul ne yooyu yaay kan nan ngay def ba ñu xam ne kii may bada bi da ngay def ay actes yoo xamante ne tey fu ñu tuddé na kuy def li ñu ne Bada Beye bu Ousmane Sonko mo def li badé Beye bu Ousmane Sonko wa parce que ci actuel la Ousmane Sonko mom da lay bodd lu yóbbaale mais ni ñi xam nañ ko ba yo yow lañ xamagul badé Beye bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko parce que kenn xamu ko wax dëgg fi Yalla kenn xamugo won woon doxalal mbay ya ko conseiller li campagne ya dugg ci ay kër wax ñi waxtaan ñëpp na ma ñoo ki badé du nuyoo nangam ak naam ma ko noo Bada mais badé du mais xamna peut être nit léeg-léeg ay conscience yo nité yo xamante peut être du la bàyyi xel mais di campagne mais li ëpp ci dëkk bi wala ñëpp ci yeneen dëkk yi ñaan amul yitte faalewul nit ñi kon bo demé ba yalla dénk la yenn fonction grâce à Ousmane Sonko ak lépp yow askan mi yow mënuloo mënoo sa bop dara ma ngi yow yow askan man ci moko bokk fi ci diwan diwan peul ci mo atel lay xey ligé ligé yi da te xam damay doon maire te du campagne bi jox kenn dërëm da damay doon maire ndax yow yi dafa xew mo tax te Sénégal dañoo mën a sot ñu bëri ci sot lañu nekkee dara ko bu la lii sot lee nga ba nga doon li nga doon bu ñëw ba tollu ci si ay cumulation fonction ñu ne da ngay wax yow nga waxon nga nek nga nek yow gor pire nga wax sa morom wax nga wax sa morom wax ku ne signé ngeen toog. yow am na loo xam te article 17 Pastef ñoo ne ñoom duñ nangu benn cumul de fonction. moom fekk na ko fa avant mi doon dara. bu doon daan doon te élément bu doon daan doon dara ñu recruté wu ñëw boole si Pastef te ñu waa mais avant la. membre fondateur Pastef la. ci membre fondateur la moom bokale mom moom ñoom bi ñu ci bëri Ousmane Sonko mo leen campagne kum mu Sonko ñëpp genn mo da bima ko sétané édition spéciale mo na du cumulé mo na day day cumulé ndax mom askan bi mom lañ fal dama tiit dama rus lañ xol ci Ousmane Sonko mais mom moom bay bay bay mbay dëgg Ousmane Sonko bay wax lool da wax ku askan bi falu ak askan falul fal nag la wax fal la wax mais mbay ak kan la askanu falul sax mbay mbay wuy man mais nañ xol ci Ousmane Sonko mbay Ousmane Sonko ñu ni campagne and ak ñom ñoom ñu koy fo kimi kimi bi nga li nga kimi li ña wax jël nga teg ko fële nga nekk député maa nga nekk maire yëpp askan wi la député bi askan wi la maire askan la amul député boo xamante ne français ñoo ko wooteel amul maire boo xam français yoo wala mais nul n'est indispensable lépp lépp lépp vote la mais am nekk Pastef ñoo xamante ne am nañ capacité nekk maire wala député waaw am nañu ko gën a am compétence sax ndax gënu jàng ci kon Bada Bèye dafa am loo xam ni conviction la ah, gis nga Macky Sall li tax ñu koy xeex mooy que day wax weddi boppam tay bu né pas du troisième mandat parce que mom mo bind ci article 155 suma djumul ci livre Sénégal au cœur né man su ngeen ma 2 deuxième et dernier mandat dootuma laaj Macky Sall moko bind ci livre Sénégal au cœur. bind ko ci constitution Sénégal kon de Je ñukoy wax ndax Ablaye Wade wax waxeet moo tax tey mu jóge fi kon Sonko wala ku dul Sonko mayuñu ko pour moom it muy wax waxeet surtout ñoom ñoom loolu parce que instant yi dañoo nekk ci loo xamante ne yeggaguñ ci mooy Sonko dafa war a nekk président incha allah 2024 ngal la bu bu fi indi loo xam yaa ngi ay laq tax a suuf Birame Souleye bu Thiès maa ngi la dégg nga naan da ngay xalaat kenn xalaat loowu la boobu ba léegi parce que li leen utaleeg yeneen parti yi lenn kese la mooy da ngeen ñëw ne on est différent on n'est pas des politiciens on est différent avec les autres dañuy changer système bi ngeen bind ko seen article 17 mais du ngeen cumuler Ousmane Sonko Sénégal jot na bi mu baabee 2019 programme bi daf cee boole loolu tey bu nekkoon président loolu lay doxal loolu la wax sénégalais yi kon mënoo leen en 2022 ngeen ni doog a am ay poste de responsabilité yoo xam ne li leen sénégalais yi yéene sax moo ëpp li ngeen doon nii ngeen bëgg koo ndax ay poste député wu yéen li leen Sénégal yéene mooy palais bi gis nga Bada Beye man Birame Souleye sax Birame Souleye Birame Souleye man xaw ma si moom lu bari mais Bada Beye mi nga xam ne def na ñetti yoon tenté na trois a xaw ma quatre fois yoo xam ne pour nekk maire mënut a nekk maire grâce à yow askan si loolu nit ñi bërëb def ko maire lii seen doo woo ko woon sa àdduna dëgg la ku am ngëm munga nga Baye Fall nga mais nag lii Baye Fall lu doxee nii Baye Fall lay dangoo ñàkk

war naa mën a teg loolu ci suuf xam ne loolu la Ousmane wax moom la moo tax nit ñi topp Ousmane Sonko ngalla bu yà bu leen yàqal Ousmane Sonko ngalla bu leen yàqal Ousmane Sonko lan mooy maire bu leen yàqal seen bopp xam ne yow ñoom xam ne bu leen yàqal seen parce que li leen sénégalais yi yéene moo ëpp lii ñu falu nii non koo xam ne li leen sénégalais yi yéene ak li ñu si yéene Ousmane Sonko moo ëpp ay poste maire député mbay waaw koo xam ne sefakaaj nga të nga dem ba maire fekk la ci ba député fekkaat la ci man lan moo tax Sénégal bëgg a ngaral mais nañu mais nañu xool ci Ousmane Sonko xool ak campagne na moom la ñuy saaga moom la ñuy toroxal moom la ñuy tëj te nekkul député yéen a nekk député yéen a nekk maire xool Ousmane Sonko li mu daj ci campagne yi tey bu doon boppam kese lay xool du dem campagne Ousmane Sonko dafa ñëw jàmm bu doon boppam kese biñu dindee bañ ko dundee ci liste bi dootul bokk mais xoolal dafa taxaw ànd ak yéen xeex ba ngeen nekk li ngeen nekk tey même bu fekkoon sax Ousmane Sonko bind ko fenn ci article yi wala binduñu ko fenn ci seen programme Ousmane Sonko wax ko ci làmmiñam rek eh, ñoom dañoo war a kaddu Ousmane Sonko boobu def Ousmane Sonko moo leen war te gën a gore

na ngeen def ah man la def réew mi <laughs> mbay sa xol jeex na mais nañ tàggoo ñëpp bëgg doon man daal yàlla Macky Sall bu ngarale ñeen war ta ngarale loolu yow loolu waaw ba pare ngeen bëgg yow nga nekk opposition ba mais doo doon ko dal ba nga dem commencé doon dara nga ngarale mais ngarale jigul xale sax da bëgg a mu ngi bëgg a ay ñeen fukki at ak ngarale jigul xale ñun moo ñu ñun xale yi sax ngarale jiguñu ndax nee nga ngarale sa tànk sa ndigg na karaj nga jug taxaw ngarale mun mun naa man bokk ñi ak campagne am na bis boo xam yoo ko tafa track ba ay deux heures matin xaw ma keroog daanaka reer yi keroog bu dul woon xaarim géey maa ngi koy bu baax moo tappi sa jàmm ñett néew dinañ dinañ yeewoo ci dinañ yeew dinañ leen suul jox lu ngeen def seen biir barki sëriñ maam keroog reeruñu mais dañoo ànd ak Bada ndax ngir ëllëg mu doon dara ndax mu satisfait suñu dëkk man ñun loolu la ñu àndee woon kon Bada ànduñoo ak yow ngir seen bat bët yu rafet dàqoo leen fi ëppoo leen fee wax ëppoo leen da ngeen ñoo jaay benn projet jaay ñu benn rupture jaay ñu benn jikko boo xam ni da ngeen ne bokku leen ak ñii su ngeen bokkut ak ñoom nag da ngeen leen wàcc ak li ñuy xëccoo da ngeen leen di wàcc ak seen i seen i jëfin yu bon yi nga xam ñoom moom ngeen nekkoon di ko condamné te cumul de mandat ci la bokk ba ngeen koy wax saxalu leen lem mbay lem neex na mais kenn du ko jiw te ku naan butéel bi jaaxaan gars yi waxtaan bi loolu ku am ñaari junni yoo may mayal ku la neex mais ku bëgg a dëgg jàppal sa la moo asalaam